moom mi daan liggéey. Adja ah, ah, eh, soxna Adja. yow kër gi ah, <laughs> moo tax des mu di. Adja moo daan way way yu neexee. Hmm. waaw jigéen waa bisik yëpp nag euh, sama rakk ji jigéen waa bisik yëpp man maa ngi yéen hmm. kon Adja si ñu euh, am na way bu siiw bu moom Adja Sy après nga génnal ñu waay woowu Adja Sy waaw. kon moom mën a boor ko ndaanaan mooy suñu directrice des programmes bi nekk ah, kon mës na fee way ko. way jigéen buy sëy xaw ma lan am na jigéen buy sëy xaw ma lan am na lu mu ko wayee woon daal. Ah, bëgg sa jëkkër xaw ma lan Adja Sy mel ni. jigéen ñi nag ñoo xew la journée de la moom Momy Dani Gueye au cœur de l'événement les femmes de D-Média dañu fës kee ne mobilisé wàccim kaamil la ñuy njëkk def ñaanal ko moom suñu njiit la woon di moom yi Bousso Seck ñaanal waajuram bu jigéen bu nga xam ne daanaka loxaam daanul jóg ci tës bi social bi nga xam ne mu ngi ko daan def mantulaaj ci bundoo da koy faral di wax man xamantew ñu nii yaakaar naa ne benn yoon la ñu mës a gisante moo di génn àdduna moom yi Bousso Seck bi ñu ko doon jaale man si lañ si laa ko mujjee gis si laa ko njëkk gis waaye nag jëf ju baaxam kii di mantulaaj ci bundoo yàgg na ko seede ci tës kaa bu ñu am da daan def te kenn du ko yëg waaw loolu nag dinañ ko ñaanalaale ñaanalaale également euh, sunu papa Thione Ballago Seck moom it euh, daanaka euh, liggéey bu rafet bu mu def fii ci réewum Sénégal wàccim kaamil tey lañuy def bu ñu noppee nag daanaka def sunu conférence bu mag waxtaane conférence si diine ji mais conférence wàllu wér-gu-yaram waxtaane jàngoro yi li nga xam ne moom moo di cancer bi ko yóbbu waaye nag Sénégal ñuy rendre hommage sunu première dame yi ni ngi leen gisee nii daanaka kii moo nekkoon soxnas Léopold euh, Sédar Senghor kii nekkoon euh, soxnas euh, Abdou Diouf mooy Élisabeth kii nekkoon soxnas maam Abdoulaye Wade waaye it Mariam Faye Sall tey jii daanaka moo ñëw def la différence waaw dëgg neexul président Macky Sall ñëw def la différence ñëw jële fi li nga xam ne mooy parfum de chambre daal di andi cuuraay ñëpp dañ ne nag fin ñu am sunu sunu sunu première dame mais lu mu ci manti doon ñii ñëpp ñoo nekkoon kon sunuy euh, première dame te ku fi jaar am nga loo fi def fondation ba nga xam ne yaa ngi ko yoroon liggéey fi lu am solo tey ñu profité ci 8 mars bi nga rendre leen hommage tribune yéene kaay nag jóge ci loolu jàll ci actualité bi euh, présidentielle bi nga xam ne jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars kon lu waay di def na gaaw yéen candidats yi 19 ngeen datu jàpp nañu ko le 24 mars donc waaw ñoom seen seen seen yëfa waaw seen yëfa. waaw léegi lu tax bëggoo ci yéen. ah waaw seen yëfa. bi seen. seen yëfa. date bi daal seen yëfa. kon doxalal kon. kon ma doxal. c'est que Mamadou Fofana doo ma wax loo gros mots yi may wax. doxal bëgg bu kaa wax loo ci matinal mukk si le président Macky Sall ne démissionne pas luy xew Mamadou Fofana si moom dañuy amal ay élection rek waaye nag bu fekkee deuxième tour bi. après le 2 avril la. kan moo fi teg am na Mamadou. con conseil conseil nee na la après le 2 Macky Sall moom mënul mënul mënul taawee mandat am. donc Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop moo jël relais àggali bi. très bien ba keroog ñuy am président. kon à tout moment ñi jàpp naan président Macky bëggul élection am bëggul lii Macky Sall 24 jours ko fi dese. waa léegi à tout moment moom dëgg la 24 jours. mais à tout moment bu ko neexoon lépp jaxasoo bu defoon nii rek tekki <laughs> ñu tëggaat lépp kon. kon ñii di wax naan noo bëggul élection am dafa bëgg a yëngal dëkk bi xam nga tey man gëm naa ne bu ko bëggoon day ñëw rek ne leen waa comme te noonu la bàyyi ma démissionné léegi ñu tëggaat lépp. mais mais bu ko defee la muy yàq moo nar ëpp la mu naroon a defar. moo tax si ci sama gis-gis. si njekk rek waaw. yaa à tout moment lu ne mën naa xew. dina yàq dina bopp laa bëgg a yëngal ma ne ko à lu ne mën naa xew. fu ñu jëm tax. fu ñu jëm taxaw. <laughs> Habib Sy nag nee na dina saisir yeneen candidats yi 19 yi ngir nag date bi nga xam ne mooy le 24 bii ñu bañ cee dem parce que nag nee nañu conseil constitutionnel ab décision amul dara lu ko mën a teggi loolu la ñu wax. Hmm. waa conseil constitutionnel moo jàppoon le 31 mars. delluwaat ginnaaw moo am prérogative. jàpp date parce que moom mooy organiser. waaye ku ko jàppaloo date kon. ah déggoo ne dafa substitué wu ah, moo moo taxoon quoi oui mais maintenant dès lors que le président. Ah, jël na rek. moom day ànd ñëwaat. kon date boobu du datu conseil datu. Euh, président la président de la république. kon nag ñoom 19 euh, euh, candidats yi nee nañ du seen bos ñoom. Ah. ñoom datu conseil mais Habib Sy est-ce que newul parce que 15 jours yi lay xaw a contesté aussi te normalement 21 jours. waaw ñoom ñoo ne nañu dem élection tamit avant le 2 avril nag <laughs> waaw léegi jàppal nañ leen date avant le 2 avril nag waaw tamit lu ñu bëgg na tànk day tàlibaamu leen rek ces élections yi sénégalais ñooy tànn quel que soit alpha. Sénégal depuis 2019 mi ngi ci campagne électorale. tey na nag. ku convaincre sa électorat bu fii. dootoo convaincre de. dëgg yàlla. dootoo convaincre la présidentielle devrait être donc organisée avant le 2 avril prochain moom lool la ñu wax Aliou Ngouille Ndiaye moo ko wax waaw loolu la ñu def avant le avril wala dañu bëgg premier tour deuxième tour nekk ci avril avant le avril. Ah, ah yàlla baax na fii de moom Sénégal. nekk na Amadou Mame Diop nañuy. dañuy bañ mu dëgg te siis ba. 24 jours daal la ci des. dañuy bañ Amadou Mame Diop ñam ñam ñam ñam. ñam si président de la président de la république. xam nga mu nekk ci CEDEAO wax dëgg de. ah mën nañu ko ah par intérim. waaw ba léegi rek. ba léegi président <laughs> bu doon benn weer sax dina ko ñam. oui. <laughs> yàlla baax na tu vois le destin de l'homme. moom bi muy dem assemblée nationale bi ñuy installé la quatorzième législature ba bi mu yeewu ci suba si xamul ne. mooy nekk moom moo nekk moom mooy nekk président assemblée nationale. tey. addunaa ngi nii. addunaa ngi nii nga xëy xëy ñu naan le président bu demee le deux à partir de trois yooyaay commencé gérer. waaye nga toog le 4 avril le ñaata la woon sax. diggante 24 ak 4. non non déjà 2012 2012 laa wax. ah. ba tey ñu ne le 24 jours moo la des. waa xam na ne loolooy àdduna. mooy loolooy lu tëgg tas. <laughs> waaye nag lakk gaa moom sa tribunal bu Dakar yéen ñu bari dem. réew mi tamit la muy lakk bëri na. ñun est-ce que jinne ji lakkaate moom am na jinne joo xam ne kër boo dem fekk mu la. moo lakk. nee nañ ki nga xam ne moo ko sooke. waa ji Dacosta bokk ci personnel bi nettoyé téye nañ ko en attendant accident nag mën nañ mën nañ jàpp ne accident la rek. mais ñoom foofu am na ay kii ah, tout est inf kii. waaw boo tàppee ci kii yi rek. waaw digitalisé nañ ko. réew mi quotidien daal di présidentielle 2024 coup d'envoi samedi lay doon. minuit zéro heure. ñu démarré ñu yeewu dimanche rek ne ca. moo di campagne bi. dañuy yeewu dimanche rek dem campagne. campagne bi dugg ci koor waaw waa léegi ku mu neex it euh, samedi zéro heure. bu tegee une semaine mën nga commencé. waaw campagne bi ci koor gi na doy waar de. koor ñi am. non xanaa après après. dog mu bàyyi non après dog. ñëpp xam nañ ne campagne dafay xumb. c'est nag ma mbay nañ ko. bu bari bi nañ ko wax te de campagne bi présidentielle bi safatul présidentielle. dara te que ñi nar a fal sax du sax dara. man moo xam naa ko faroon président si condition yi man sama sama ndomba tànk du sape dara daray crédibilité day mu ngoog conseil constitutionnel validé le 24 mars bi waaye nag soo moytuwul de weeru koor bi dana saf sàpp de UNACOIS yeesal ñu ngay ñaawlu yokk dëkk de heure bu koor ñëwee loolu dund gi day yokk nañ dimbali borom kenn amul pexem nañ dimbali borom kër yi nañ dimbali borom kër yi tànn de nañ ñu dimbaliwaay waay. ñu dëkk ci le point actu. Macky croit-il Amadou Ba euh, donc lii itam question la bu nga xam ne ñëpp ñu ngi koy laaj ndax candidat bu euh, Macky Sall Amadou Ba la ndax gëm na ko ndax yaakaar na ca moom wax nañ cee wax a wax a wax comme ñu actualité moom. parti ba de xam na parti ba moom xam na ñaar moom. xam na ñaar. ah pro kii ak pro te parti yëpp la de am ci parti bi yëpp la de non non ñaari parti sax am na yoo xam ne ay pro pro la. waaw pro pro. ex-Pastef bi ay pro pro moo ci am la ñu wax. waaw fee tamit Benno Bokk Yaakaar pro pro. pro très bien kon réew mi daal pro pro la. nee nañ comme ni ko Fabrice doon waxee sànq. ñoom waa ex-Pastef dañuy wax ne Jomaay moom mooy Sonko Sonko mooy Jomaay est-ce que waa Benno mën nañu wax ne Amadou. mooy Macky Macky mooy Amadou. ah dégguñu ba léegi nii Macky ne mooy Amadou de. ah. Amadou tamit waxul ne mooy Macky de. en tout cas daal li ñuy gis nii daal daa mel ni. c' est que Amadou moom moo nekkoon di makki makkilu. waaye makkiwul. waaye <laughs> parce que moom en fait ci bilan Macky Sall la yaakaar pour falu. buñ ko fàtte. donc moom moo doon makki makkilu. moom de moo na moom da doon bëgg a dem ba weesu loolu. waaw waaw. Ah, mais mais dina xool ci baax. mu kii mu gérer waaw. ah kon moom reconnaître na ne am na safaan. Ah, ok. jërëjëf monsieur le maire maire de Simbandi Balante Simbandi Casa euh, a Kalmer maanaam nee na mi ngi rendre hommage à toutes les femmes du groupe des médias jërëjëf monsieur le maire moom moom euh, sunu euh, inconditionnel la bokk Vox Populi la présidentielle en en seize jours chrono donc kon ñaari semaines yi tuuti nga ci teg mooy présidentielle bi ñu war see battre campagne sept sages yi fekk si nañu président Macky Sall si date bi nga xam ne jàpp na ko muy le 24 mars CNRA nag fu mu nekk ni delluwaat nañ kon nag ci la nga xam ne moom la ñu jëloon li nga xam ne moom la ñu war a organiser ci média bi euh, wàllum campagne bi information bi couverture yeex lu ni xeetoo daanaka nag ñoom it jëlaat nañ lépp tegaat ci taabul ji Badio Camara et compagnie justifie justifie leur date du 31 et leurs alignements sur celle du président nee nañ ils ont exercé leur prérogative que par substitution afin de pallier euh, l'inertie donc de l'administration et satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral lii rek moo taxoon ñu jàpp datu 31. Hmm. ñu xamee ko noonu jamono jooju nag Déthié Fall nee na bés bu ma faloo loi d'amnistie bi bee boo ñu xam ne lépp lay xotti. les exigences du F24 pour l'organisation de l'élection euh, choix d'une personnalité donc neutre la ñu bëgg ngir mu tëgg élection yi donc ñu ngi xëpp seen ni gët di xool ministre de l'intérieur bi ministre di kabakan kan lay wala nag kan la ñuy tànn ngir mu tëgg élection yi. Hmm. yéen kaay bi dikk na ci dikk na également ci bés bi la jour ci 8 mars bi ak ay soxna yu mu tànn ngir nag sargal leen sama mbokkum tëngéej bi Nafisatou Diouf ah. waaw euh, taskatu xibaar la. mais dem ba imposé wu euh, ñu am na lu ñu ko euh, dénk lu am solo ci réew mi ba tey ci wàllum communication Nafisatou Diouf journalisme à la politique muy def liggéey bi am solo ci tëngéej ñu koy rendre hommage également. le temps mooy yéen kaay dikk na ci élection présidentielle dimanche dès l'aube Déthié Fall nee man damay dem sa campagne ba sur la campagne oui. je m'en <laughs> la woon. Eh man daan jàpp seen i tur de. <laughs> Eh waaye dama fàtte kii retour au pays natal. waaw cahier de retour au pays natal Aimé Césaire. eh waay. tur <laughs> bi dama koy fàtte pourtant xamoon naa nag. yooyu daal du ma rëcc. ay MSG ay Antoine Saint-Exupéry. Saint-Exupéry mm. vol de nuit. Jean-Paul Sartre vol de nuit am na lu ñu daan wax Assise Racine de la Bruyère Molière Boileau de la Fontaine Sénégal nag njàng mi daa métti. lépp ay vol de nuit vol de nuit. fleur du mal. le dormeur du mal. <laughs> ay ca doxal. le le rouge et noir. <laughs> journée mars. bien bon nag jigéen ñi ngeen xam ne. élection yii nii. yéen ku fal yéen jigéen yéenay fal. benn bañ na ci ku mobiliser yéenay mobiliser. ku fi nekk président yéen ko yóbbu sa palais ba. Hmm. benn candidat ngeen am nag muy Anta Babacar Ngom. ci 19 yi jigéen ñi benn. jigéen ñi ñooy fal benn candidat la ñoom Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom rek ci elle benn bañ ci gémmiñ day weex. te loolu lay histoire di retenir nag ci élection bii. waaw ñaar lañu 19. 19 candidats benn jigéen. benn jigéen moo si mi ngi nii. Anta dugg nga ci histoire na. Anta Babacar Ngom moom ket mooy seen candidat. na ñafe rek séddale ba ñàkk. na ñafe rek. na ñafe rek séddale ba ñàkk. war nañ la xoolaat kon comme yéen jigéen yéenay séddaate nag. boo leen séddu seen bopp dootoo góor baax na jigéen baax na. am na dëkk yoo xam ne ay présidente nañ am ah. ay Singapour ak yooyu tey dañoo développé wu te jigéen na leen développé mi ngi ni am xolal am taxawaay am personnalité am fulla carrure ak lépp di jiite réew mi doxal ko nag kese loolu moom moo loolu moo fi nekk jigéen baax na góor baax na tamit est-ce que duñu mos jigéen sax parce que boobu ba léegi tamit ay góor rek dañ leen mos présidentielle 2024 daanaka mi ngi nii euh, kii nga xam ne moom moo di président Macky Sall ak Karim Meïssa Wade heure de crise heure bi nag maa mooy genre choc moom la ñu bind waaye du euh, heure euh, waxtu yéen kaay bi daal na si dikk Amadou Ba convoque conseil de guerre élargi aux responsables départementaux l' observateur daal di dikk ci 8 mars bi ak nag yéen kaay bu futur média bi ay soxna yu mu tànn ngir nag def seen nataal waxtaan ci seen i jaar dañoo bëgg yokk kii waaw ah. waaw. Alioune Cissé mii dañoo bëgg a. waaw waaw correct ah. en tout ñu ngi cay waxtaanee de. ah mais tamit Alioune nag vraiment. ah tamit bu fekkee moom moo fi nekk. nga may keneen mos tamit de. le lan défilé du 4 avril annulé. ah waaw mënul nekk. mënuñu ko boole campagne. déet. mais suñu feetu indépendance la. non mënul nekk. ñii seen yoon nekkul si kii bi bu ñu leen xañ. mais tamit élection bi lu mu ñu xañ bari na de. Ah. élection bi lu mu ñu xañ dafa bari. datu 2 bi moo gën a siiw datu 4 avril. tenue de l'élection présidentielle les sept sages moom adopté le décret de Macky. 4 <laughs> avril lañ ko fàtte. <laughs> candidat yaa ngi fu mu nekk ñoo doon yootu yootu yootu ba mbir yi tegu ne tëtt na jonn hmm. dañoo jaaxle. parce que diir bi ñoo am gàtt na ñu war a lijjanti ñu leen nekkal ci bureau yi ba noppi war a dem ci réew mi yëpp. ci diir bu gàtt bi moyen daal di taxaw mbirum koppar. ah ku am organisation de. oto yi kenn si def ndox. ku am organisation de mën nga cee génn. te am na ñoo xam ne ñoom de ñoom commencé woon nañ campagne léegi carburant boobu ñu yàq. mënoon nañ ko denc di xaar bés bu rafet fii laa taxawoon wax ko ñu daggal ñu ba ñu tooy. le soleil yéen a kaay.